yal na yàlla dooleel lislaam na wax ñi nga wax nee moo tax yàlla jëlee leen fi ñoom tubaab yi andi suñu doom yi andi suñu jarbaat yi andi suñu mbokk yi teg leen fi ceer nee amul dara lu ñu wax léegi nee lu dul sant yàlla nee na rek mooy suñu wax sant yàlla rek nee ndax yàlla baaxe nañu nee na ñoom lépp lu ñu ciy defaa rek ne ñaanal leen nee na yàlla moom mooy jubal mooy defar ndax yàlla defar lépp jubal ko defar ko nee na defar jubal ñu jiitu ñi yàlla may leen maanute ndax ñu mën jox képp borom ak bu nekk ñu jox ko ak yàlla ne leen yàlla may ak muñ ñu ñàkk xam ci leen xam ki leen bugg ak ki leen noonoo ki leen dimbali woon ak ki leen dimbaliwul woon ku leen wooteloon ak ku leen wootelul woon nee na ndax yàlla nangu na jox na leen ko jeex na léegi nee na lu des rek mooy baaxal ak maandu ak séddale nee na nga séddale séddale gu maandu ak nga muñ tamit tooñ tooñ yi ñàkk a xam sa noon ci sa njëriñ du sa sirru sa mbóot nee sa mbóot kay nee na nga xam sa noon bi bu ko ko wax waaye sa njëriñ li nee xam sa noon bi nee na loolu lañ la bindee ñu ngi leen di ñaanal tamit yërmande ñu ngi leen di ñaanal tamit du leen yàlla yorloo lii ndax yàlla yoral leen ko ndax bu leen ko yoralee rek day baax nee na tey ndax jullit yi tamit yàlla xiirtal leen ci dimbali leen nee na ndax bu fekkente ne dénk nañ la lépp jiitu nga ci nee na jullit bu nekk war na laa ñaanal nu loolu nu mu war na laa dimbale nu nu mu ñoŋee nee na loolu def te woote yi bu ndari nee na woote mu ñëwee nee ñoom ñii xamuñu li wax parti ñoom xamuñu ko te tamit moom yàlla dimbali na ko nee moom benn parti benn parti mosul yekki ci moom ci li ñuy def seen campagne li nee na loolu mosul am depuis woote bu mu dele am ci Sénégal ko haala haala ko nee na benn parti dugul ca kër ga di ko wax mbiru Farafa Kaan nee na moo tax moom ci boppam amul parti nee na bu ñu wootee yoon bu njëkk wi kenn ci ñoom amul benn parti amul ndam li Ceerno nee na nag léegi nag léegi leen dooleem nee na keroog googu nee na ci julli tabaski la woon fekk Ceerno mu ngi nekk ci xutba bi yàlla Ceerno nee leen léegi kenn ku nekk ci yéen def na dooleem def na fexeel yi def na alalam amul heddi ñaareel yoon yi moom moo des jooni ko allah suɓat nee na léegi nag yàlla ci boppam mooy yàlla moom mooy tànn kii nekk kii onon fof goto fof dartino golli darti waɗi heɗani yeena yeeñam kenn ku nekk na wutoonna jefina doolem defna alalam yeena wurna waawi kenn ci ñoom amul ñeene léegi def defu yàlla moom moo def yàlla nag bu dee mu ngi def nee na ñaareelu tour bi bu ñëwee bu nit ñi sànniwee seen carte yi ba noppi nee na ñu gaaw a wàññi wàññi yëpp yàlla dina digal malaaka yi ñu dugg ci kees yi ñu rocci ñu defal ko ci mu def ci moom yàlla moom yàlla rek moo xam kooku nee na comme si nag noonu la ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla tànnal ci gën ci gën ci yëpp ci ci ci liggéey bi nee kooku tamit min kasi dinaami o andami nee na soxla wuñu mu xam ñu waaye na xam ne moom rek la ñuy ñaanal kanko tan kadi min ngoni moom rek la ñu nekk ndool kono noon ɓen ngalam taweta ko goye ngalam taweta waaye sama lamiñ teewe waaye moom rek laa àndandol moom laay ñaanal du mo ñaana si joge keneen ñëw nekk foofu du ma du ma ñaan tamit nag na nekk rek foofu bu buum si joge bu fekkente baaxalul déedéet miɗa waɗimo ɗo allah waɗimo ɗo miɗo du'onomo ɗo allah waɗimo neena moom kay ko defti ko yallah defti ɗumne koye ko yallah defti mi ñaagi miɗen yartane kadi julɓe fof ndenda mballa ɓe beele eɓe mbawa moƴƴude neena mum mi ñaanta mi juuta mi dilite ɓoolomana leena dimmala ndax ñu mën a mbaaxal loolu tawi bo neewee min gañima leydi ndi man bu ma gañee bu ma amee réew mi mi fewna defar sa gaña bu fekkee ne gañe wuloo goɗɗo gañi bu keneen moo gañe ko fewnanoɗa ko doon def waroon defar li ñeena na nga dimbale kooku moom tamit ba mu defar ko waɗi ko bonna waaye bul ne lépp lu mu def rek nga yàq ko ndax ñu ne moom ba manul seere nee moom lii moom mooy yoonam nee na moo tax nee mu ngi bég bu ngeen fi ñëwee nee na na ci ndax seen njaboot la moo fi daje seen liggéey la nee na war ngeen war ngeen a wattu war ngeen a wattu mbir ñoom war leen gis war xam tamit ni ñu nekkee fii amma ko ɓe ñaami nee na mu fekkee te ne li ñu lakkali la minen daaka nee na ñun daaka neɗɗo fof yo addor ko ñaami nee na dañuy dénk nit ku nekk na ñëw buy ñëw ne ande waale li mu lekk ak li mu naan nit ku nekk na andaale li mu lekk lii bu ñu ñëwee kenn ku nekk mbaaram lay nekk ak lekkam nee na ndox yàlla waɗi ɗo wax ñi nga xam ne ñoom la fi yàlla taaj nañu indi ndox wiyeteeɗo salɗo sal Macky Sall nee kooku moom moo wax nee dina fi yónnee ndox ñu andi ko fii ñu andi fii tamit groupe nee na ndax seen njaboot moo fi nekk nee na ñaanal lañu leen ci loolu nee na loolu bu ñu ko defee def nañu lu baax te tamit bëgg nañu nee na loolu tamit bu ñu ko deful nee na seen i bakkaar la bu nekk ci seen kaw seen ayib tamit lay doon bu fekkee ne la defu leen ko nee na duñu soow nee na ñu am lu ñu naqari mu ne waaye seen ayib lay doon nee na seen njaboot bu ñu ci béréb gisuloo leen te potoowu leen leen nee loolu seen ayib rek lay doon mu ne waaye yàlla baax na nag bi ngeen defee loolu ceru nee na bég nañu nee na ñoom ñii bu ñu leen gisee fii rek seen day sedd ñu xam ne ni yéen ñi yëg ngeen ni dajaloo nañu ne kat ñi fii njaboot lañu ñoo ngeen xool ci leen nemeeku ci leen ñoo ngeen seet xam ni ñu nekkee fii bu ngeen fi yegg wee li ngeen xam li ngeen war a def ak lu ngeen war a leen lu ngeen leen war a dimbali waaye bu ngeen fi ñëwul du ngeen ko xam nee na nit ñi li wax ni boo ko dégluwee nee na doo dem ci juum nee na léegi même bu dee wax nga fii wax léegi ci suñu biir bu ñu fi génnee kenn ku nekk wax ni no nayi no miijortonoonde kaalataade ni mo ko ɗoon halaatee waktu wi ngo borom yu ma doon xalaat ci biiram waxtu wi nga doon wax nee na lay nettali ji nee na du wax du nettali waa wax ji wax teere nee na adduna bi noonu la mel nee na moo tax na nga ñëw ba nga gisee koog sa bët nee na nañu te nañu insha allahu taala defe naa léegi la yegsi nee na léegi la ñu andi groupe bi nee na ndox moom ñëwoon na di barki démb Ceerno Ali wax na ko loolu dina wuññi lépp loolu mooy sama yaakaar ci yàlla nee a ñu bàyyi ba ajjuma. nee na bu ñu gisee as tuuti naaj. nañu xam ne suñu aajo bi faju na. nee na jant bi feeñ si naaj bi feeñ. ko. ñu ne ñëw nañ fii ci Daaka bi de waaye jant bi feeñ na tuuti. keroog nee leen tamit ñun tamit gis nañ fi jant bi. moo tax yaakaar nañu ne suñu aajo yi faju na. alhamdulilahi rabbil aalamiin nee na ndox mii nii mu toll ak fii ni mu nekkee xur nii nee na danoon war a nekk tey fii fekke kenn mënu fee toog nee na ndax yoon yi ba léegi ñu ngi am ndox ba léegi nee na ba léegi ndox yi mu ngi taa ci yoon yi te fii moom moo gën a nekk xur nee na fii dafa tooy rek waaye taawul woon ndox nee gis nga fii lii léegi nee bu tawee lu toll nii nee na béréb yëpp taa nañu fekk fii moom taawul nee na te tamit fii xur la nee na xamal na ni yàlla la nee na bu dul woon loolu la xam ne kay loolu xel kay du ko nangu nee yoon wi gis nañu ay déegi déeg la nee na ba mu yegg ci waaye fii nee na dafa tooy rek waaye ndox taawul fii nee na ndox mii na la daan daje nee na lii lépp la nee na ñu sant nee nañu xam ne tamit kii moo moom nii bu noppiwee réew mi yëpp moom moo ko bokk réew mi yëpp moo ko bokk nee na wa siin la waaye réew mi yëpp la nee na bu fekkonte na xamoon nañu ne nee na kon nit bu nekk dina taxaw ci kii nee na mu nee na diw mudir la diw xaadir diw tiijaan la nee na loolu duñu teree bokk lii nee na lislaam yi moo ko moom lislaam dafa mel ni ndox nee na tarixa yi mel ni garab yi nee na garab gu nekk ak mu ne waaye ndox mi mel na ndox mi la doonu la tarixa mel lislaam benn la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ndox mi mel na la mu ne waaye garab gu neex gi nee na garab googu nee na am na xeet nee na garab gi nii la neexee tali bale nii la neexee bii moo gën a neex nee na garab yu neex yi nii la ñu melante waaye ndox mi mel na la moo te alquran nee na wa fi l ardi mu ngi ci suuf si qita'un mutajawiratun ay béréb yu ñu dëkkee وجنات من أعناب tool yu ñeene ñoo ci nekk lii lii ay tàndarma la min naxiilin wa anaabin sinwaanin wa xayri sinwaanin nee na ñoom garab ne ñi yëpp na xeet yi yëpp ñoom ñoo bokk mbir ñoo bokk ndox tusqaa bimaa'in waahidin ko ndiyam gootal nee na ndox mel na mii la ñi la ñuy nan naan waaye wa nufaddilu ba'daha ala ba'daha ala ba'din fil ukli nee na waaye càkk yi ban duñu benn noonu tariqa yi noonu la tariqa yi mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lépp la soxee koo waaye bu nekk nag ak li nga xam ne moom lañ ko jagleel nee na mbiru daakaa bii nii jullit yëpp ñoo ko bokku nee bu dul loolu tamit tey jii sant ñeel na nee na ñoom ñii ak sëriñ Saalixu ñoom ñoo bokk liggéey nee na loolu sëriñ Saalixu xam na ko nee na moom tamit xam na ko nee na li tax ko ko fii tamit ñoom ñii tamit xam nañ ko nee na képp xam na ko ñoom ñëpp benn lañu nee na muur nee na suñu mbokku taalibe murid yi nee na dem ziyaara ji Tuuba lu dul dañoo ñëw ba ca buntu kër ga ca muur Ceerno génn gis leen Ceerno ñaanal leen ñu doog dem Tuuba nee na boo leen laajee ñu demee sëriñ bi yow lay njëkk laaj moo tax du ñu dem lu dul dañoo jaar ca ga ba noppi nee na suñu mbokku xaadir yi tamit nee na weeru koor wu nekk nee na dëkk bi yëpp képp ku nekk foofu xaadir dañuy booloo dajaloo ñu ñëw ca kër ga ca mu ñu andi seen suukaru koor ñoom ak seeni soxna yi ñu jokk mbokk gi ci kër ga nee na ñoo bokk nee na nii nañu xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk nee na woo nañ ci ñëpp yàlla nañu yàlla may ñu jëriñoo bi jaahi nabi Mustafa wa ashaabihi nee na sufrasi wax na kàddu gu baax nee na nee na wàcc nañu liggéey nee na kàddu gu baax la nee na ñoom tamit bu ñu fi nekkee woon. ñoom ñi ak Thierno ñoom ñoo doon dégg fii. nee na lépp lu nekk aaji Thierno fii. moom ak Thierno ñoom ñoo ci nekkandoo. nee na ñoom ñi tamit ñu ngi leen di ñaanal. nee na lu gën li moo ko xam. yàlla nañu yàlla may lu gën. nee na lu ñu bugg nii nee na nañu ko won yàlla waaye ñu na ndax loolu moom yàlla rek moom moo ko xam allahumma salli ala rasulillah bokk ngeen yitte bokk ngeen tamit jëf si tiim ndax yàlla mu dindi lëndëm gi nekk fii mu delloosi leeru lislaam ba mu nekk kër gu nekk du nekk fii ci siin lu dul fekk lislaam lay doon nee na loolu lii loolu lay dox nee loolu rek tam xam ne loolu lay wut nee lu xadiri li mu waxoon li wa ma an amri nee na nekkul moom mii rek moom mii ci boppam déedéet nee du loolu déedéet nee na moom kay dañ ko digal na ñëw fii fii nee na képp ku fi dugg muy wax lu dul lu fi nekk lii lii fekk borom amul ndigal yonent sallallahu alayhi wa nee na at at benn at rek lay doon loolu wëlbatiku ci kawam nee na waaye ren am fukki at ak juróom nee na ñuy dete fii ci palaas bi sëriñ bi nee na bég na bu baax nee mu ngi leen di bismillah nee na ñun xaal pulaar yi am nañu lépp nee nañu mag mag nee na garab bu nekk ci suufu daane maayo la nee garab gi na nga dafa sax ci taati fere géej nee na garab googu bu daanuwul ren tamit dina daanu um, déwén nee na ñun fuutankoobe yi loolu lañu wax ne nee mag noonu la mel nee na moo tax jëf ji liggéey bi nee nangeen na xam ne yeen lañu koy liggéeyal seen njaboot gi ndax ñoom seen njaboot gi bu ñu ñëwee nee na ñu yore seeni mbir yi fekk du beneen sëriñ rek moo jege fële mu ñëw fii di leen dimbali maa di leen tettal déedéet fekk ñoom seen doom yi bu ñu ñëwee nee na bu liggéey bi bu jubee bu baaxe ñoom jàng nañu toppatoo nañu diine ji loolu de loxo yi waaye bu fekkee ne yaa ngi ji yaa ngi jéegaani jéggaani yaa ngi jéggaani dund day fekk ne loo mu ne waaye sa tool bu ñore ci sa baax na nee na doo dem jéggaani gi yàlla nañu yàlla dimbali nee mu ngi leen di wax bismillah nee na képp ku leeral jàkka nee na sa bàmmeel du lëndëm nga jàkka ngir yàlla fekk da ngaa fekk jàkka ji mu ngi lëndëm amul lampa nga def ci lampa nee na yow sa bàmmeel du lëndëm mu ne bu fekkente ne nag jaar nga yoon de nee lii tamit noonu la nee na guddi gu lëndëm lañu fanaan diig ci guddi nee na yaakaar nañu tey dina nekk guddi gu leer nee na yéen seen mbir yëpp yal na ko yàlla leeral ci seen jëmm yi ak ci seen liggéey yi ak ci seen lépp nee ñun ñëpp tamit yàlla nañu yàlla defal lal noonu ñun ñëpp yàlla na leen yàlla wottu tamit ba ngeen yegg ci ci jàmm faatiha ak salaatul faatihi kër nee na ba léegi li ñu doon wax lépp nekk nii ba léegi loolu rek mooy li ñu wax léegi. sant nee na yàlla. nee na ñu taxalee jaamu yàlla la. ñu taxalee màggal yàlla la. nee na ñu taxalee ndax yàlla. yàlla dimbali ñu ci njub. njub ñi nga xam ne képp ku mu ko jubalee. borom day jub. ذلك هدى الله يهدي بها من يهدي به من يشاء لين يسجد الله قل إن هدى الله هو الهدى من يهد يلا لون ويهد من يهد الله فهو المهتدي بيان قيامة وصفهم وزيدتي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ñeeni jublugu yàlla la waaye ko am aaji dina kooku moo koy am ñeeni ku ci am aaji si kooku moo koy am ñeeni jublugu yàlla la mu ne mu ne waaye ko am ci loolu aaji neena kooku mooy am ak jubbi ñeeni ku fekkee ne ko amul aaji ci nit

ko heeweɓe sagataɓe ngannda ñeene ɓeydo hambaani ɗofi hawyooru heewe kettutoɓe e diine mum ñeene ɗumnenen wokkotoɓe ɓe diine ñeene ɗi wokkola ɗi ñeene so gemminɗi hatawonta ɗon ndey moola fayo so gemminɗi hatawonta ɗon ndey moola fayo min wumlaade fayo كما كنا حين تبين فيها قوله تبين من هرب من المتبوع غير موالفة يحبين تبين ذنبك من تبين تبين تبين تبين ثم إذن إذن يهيسم من مول موتهين جودة إذن في من واسين إذن يهيسم من في جودة يلا يلا دول الإسلام nee na li Touba Abdou wax nii nga wax nee na moo tax yàlla jëlee leen fi ñoom Touba bi andi suñu doom yi andi suñu jarbaat yi andi suñu mbokk yi teg leen fi Ceerno nee amul dara lu ñu wax léegi nee lu dul sant yàlla nee na loolu rek mooy suñu wax sant yàlla rek nee na ndax yàlla baaxee nañu